gaan baa ñu liggéey baa ñu liggéey xoolal C'est bon. Voilà, c'est bon. Très bien. alors ma ma maa ngi leen di nuyu euh, maa ngi leen di sant maa ngi leen di ma ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di ñaan suñu borom. sëñ Mountakha Bachir mi ma jóge yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te mu ànd ak di ndokkeel mbokki murit yëpp ci bés bu tedd bi ñu dëkk ma di ñaan suñu boroom defal ñu tawféex bi ñu ko fekkee e di ñaan suñu boroom mu kàttanal ñu dooleel ñu ba déwén ñun ñi ñëpp kenn du ko wuute alors dama ñëw rekk comme taalibe bu nekk di dellu di sant bu baax sëñ Mountakha ci li mu ma defal nde yaakaar naa ne taalibe bu nekk lii mu ma defal tey jii taalibe bu nekk bëgg na ko yëg la nga yëg si mu dalal la dal goo xam ne dal gu restreint la nga jàkkaarloog moom mu téye sa loxo ci ay minutes yu bari ma ne ko Mbacké ñaanal ma ma mucc ñaanal jàmm ci réew mi ñaan dal ci réew mi ñaan tawfeex ci réew mi mu ne ma Bougane yoon bi nga nekk ak ni ngay taxaw ci yoon bi gis naa ko yal na la cheikhul xadim fayal boppam loolu taalibe bu nekk loolu rek lay ñaan te moom Mbàkke Balla ñaanal nañu sàkku nañu ci moom mu ñaanal ñu mucc sàkku nañu ci moom mu ñaanal réew mi parce que nag réew mi ku ne xam na ne jamono yi metti na jafe bari na ay tolof tolof bari na ay metti mettit yoo xam ne kenn ku nekk yëg na ko màggal gi yegg si comme benn bouffée d'oxygène waaye loolu borom màggal gi moo ni toll yàlla na suñu borom def képp ku matalewul ci màggal gi Cheikhul Khadim mottalil ko boppam euh, tànk yi daal jàpp leen ne tànku taalibe la tànku doom la tànku mbokk la nde laata may yegg si fii dama dem ci sëñ Moussa Nawel mu yabal ma ci sëñ bi ku ne xam na ne Bougane Daaru Xuddus la féete kon ku tudd Daaru Xuddus ka ca bopp ba sëñ Ahmadou Maxtaar ñuy ñaan yàlla bàyyi ko fi moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wen jàpp leen ne daal tànk yi ñu indi tànkum taalibe la tànkuk ziyaar xam naa ne nag yéen la presse fi mu toll nii yéen it pare ngeen pour cooki mais cooki dans le bon sens mais comme dañu ñëw ci jamonoy yi màggal may wax ne rek maa ngi ñaan ngeen jéggal ma ci bépp question bu tourné ci wàllu politique waxaa leen ne tontu du forox danes na ko tontu ñoom ma leen ko ñaan rek di massawu nag waa Touba ci jafe-jafe ndox mi ku nekk mën na cee teg bëtam ndox mu ñuy naan comme ndoxu taw ñaari ndox yëpp doon na jafe-jafe Touba waaye nag peut-être que je vais vous ñii fi nekk mënuñu leen imputer lii fi xew parce que nag bi ñu dooreek léegi liggéey bu ñu demee ak temps bi mu laaj xëy na am nañu ci ay yéene mais yéene daa doyul xëy na am nañu ci ay pexe mais pexe doyul ndax diir bi gàtt na donc jàpp naa ne fi ñu leen di natte mooy màggali déwén lii ñu gis ci ay jafe-jafe ci ndoxum naan gis ko ci ndoxum taw jàpp naa ne déwén heure bi bu ñu ci indiwut saafara murid yi danañ taxaw indi ci saafara ndeku mel ni man indi naa fii ay partenaires espagnols yoo xam ne dugg nañu ci dëkk bi déjà dem nañu xool nañu fu ñu war a def fu nekk douze forages ci biir dëkk bi def nañu devis yi def nañu lépp ba mu féete boor incha allahu rabbi ñoom bu ñu ci taxawul murit gi danañu xar seen tànk tubéy taxawal ci seen bopp ndax nag Touba commune Touba dafa war a am statut spécial ngeen déglu li may wax parce que nekkut ne li ma doon mburit moo tax may wax Touba mooy commune bi gën a peuplé ci Sénégal Touba population bi fi nekk département de dakaar li muy rëy rëy rëy rëy commune moo ko ëpp ay habitants kon lépp lu ñu def dakaar war nañoo def Touba lu ko duble wala lu ne toll kon jafe-jafe yi fi nekkit ku ne xam na li ko waral parce que fu 7 million de personnes di daje un gouvernement dafa war di prévoir 7 million de personnes jàppal ne ci estimation bi ñu mujj def dañ ñëwoon 6 ñetti sénégalais yoo jël benn bi mu ngi Touba ci jouru màggal kon loolu dafa laaj disposition spéciale yoo xam ne war nañu mën a xam ñaata ndox la ñu soxla laata màggal war nañu mën a xam ñaata ndox lañu soxla bisug màggal war nañu mën a xam ñaata ci mbalit moo fiy génn jouru màggal laata màggal ak après màggal parce que loolu mooy état état dafay dug dund di dox ci prévision ba ci oto yi fiy dugg nee nañu deux cent mille la mais jàppal ne Touba ñeenti yoon ñoo fi nekk ñeenti bunt yuy dugg mille atum ca ginnaaw ba fi may wax ak yow nii ñeenti yoon yooyu ñoo nekk fii soppikuwul donc ba ñuy am cinquante mille véhicules di am cent mille véhicules ba ni ñuy amee deux cent mille véhicules ñeenti yoon dong ñoo nekk Touba kon insécurité Touba du insécurité ci wàllu dëkku dëkkuwaay dong dafa nekk insécurité ci wàllu ndox nekk insécurité ci wàllu yoon insécurité routière nekk insécurité yëpp boo ko conjugué muy insécurité humaine daanaka ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkee loolu nag ñi jiitu ak ñi yore réew mi loolu la tegu ci seen ndodd ma gëm ne incha allahu rabbi fii ak fa ñu jëm di màggali déwén danañu ci indi ay jéego saafara ko comme li ma leen wax rek bu ñu ko saafarawul ñun pare nañu parce que ay partenaires ñëw nañu dugg nañu ci tuuba def nañu liggéey bi avec des espagnols ba pare et incha allahu rabbi bu ñu ci taxawul ñun danañ ci taxawal suñu bopp. président maa ngi lay euh, nuyu bu baax euh, sànq ci sa biir euh, wax. Euh, yéen euh, taskati xibaar yi euh, pare ngeen ngir cooki mais dans le vrai sens nga xam ni moom moo nekk njiital premier ministre di Ousmane Sonko moom bi muy nekk opposition dafa amoon benn slogan bu mu utiliser woon muy gatsa gatsa yow nga taxaw daal di wax cooki yéen journalistes yi pare ngeen ngir cooki dans le vrai sens du terme. Mm-hmm. président Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp lay jàmbaar lan nga jubloo wax foofu ci journalistes yi ci wàllum cooki boobu. ndax jamono yi ñu yaa ngi nekk opposition bu baax di dama leen di. dellu ci kaddu yi ma waxoon rek mhm. yaakaar naa ne ki la jiitu ci néeg bi mhm. moo lay wax fa ngay toog maag mhm. yéen ñoo bokk liggéey bi te yaakaar naa ni def naa ci diir donc dooma mun a per njaayu waaye li ma lay may rek dafa am sama benn xarit bu ñuy wax Abdoulaat Fall mu ne ma bu ñu yeggee ci ñàkk kersa bu la kenn jiitu ci gàtt sa kon saaga yàkkamtee xeex dinaa tontu jërëjëf. président ah, mais non non président. Ah, ah, président s'il vous plaît. mais non euh, euh, ki nga xamante ne euh, oh, sa bopp kon